soxna si ñew nañ fi tay soxna si ñew nañ fi tay comme ni nga ko xamé comme ni nga ko xamé ñew ñew waye ñew ci tanki waye ñew ci tanki. suñu kilifa. suñu kilifa. suñu Njit. suñu Njit. muy première dame. muy première dame. soxna mariam Faye Sall. soxna mariam Faye Sall. mi nga xamné mi nga ko leerem ko leerem ak yow. soxna Marème Faye Sall kóllëreem ak yaw taxawaayam. taxawaayam. ci biir réew mi. ci biir réew mi. taxawaayam. taxawaayam. askan wi. ci askan wi. moo tax. moo tax. fépp fu ñu defee lu baax. fépp fu ñu defee lu baax. wala ñu di fa waxee lu baax. wala ñu fay waxee lu. baax. wala ñu fay jéemee lu baax. dem na fa. dem na fa. wala ndawam dem na fa. wala ndawam dem wala loxoom dem na fa. wala na fa. ñu yëkkatiwaat tey. tey. forte délégation. forte délégation. bu mag a mag. jël teraanga yu mat sëkk. jël teraanga yu mat sëkk. teg ko ci suñu loxo. teg ko ci suñu loxo. pour ñu ñëw jébbal la ko. pour ñu ñëw jébbal la ko. yow mii nga xam ne. yow mi nga xam ni. séeram nga. séeram nga. xaritam nga. xaritam. soppeem nga soppeem nga sëriñam nga sëriñam nga kóllëreem nga kóllëreem nga waaye itam waaye tam mu xam wi daje fépp askan wi daje war na faa def war na faa def mu xam na wareef la ci xam ni wareef la ci moom. ci lépp lu ñu def ci lu baax. ci lépp lu ñu def ci lu baax. mu def ci mu def ci. ñu xam ne wareef la ci moom. ñu xam ni wareef la ci moom. lu ñuy yëngal. lépp lu ñu yëngal. Mawlana Ahmad Bamba Cheikh Ahmadou Bamba rawatina rawatina ci soxna Kisah ci soxnatulahi mi nga xamni mi nga xamni mom, nañ ci mom Jamom soxna la ni soxna la ci mom yalla def tay te yalla def tay mom mu nek ci soxna ci mu nek ci mboo mu jitu soxna yi nek ci rew mi motax bis jotey xalaatam yi xalaatam yi ak man-manam ak man-manam ak teraangaam ak ak def-defam yu baax ak def-defam yu baax bés bi mësu koo uute bés bi mësu koo wuute bés bi itam du kumpay bés bi du kumpay xam ay def-defam xam ay def-defam moo tax moo tax mu wax ñu nañu mu wax ñu nunu lu a nekk. nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi. te jël délégation bi. te jël délégation bi. teraanga ji. teraanga ji. ñëw jébbal la ko. ñëw jébbal la ko. ngir nga defal ko ko. ngir nga defal ko ko. ci bisu sell yi. ci bisu sell yi. defal ko ko. defal ko ko. ci jaami yàlla yi nga. yàlla yi nga xam ni. ñuy rot si fii. ñuy rot si fii. dara indiwu leen fii. dara indiwu leen fii. lu may xeeñtu lu baax. lu may xeeñtu lu baax. ak xeeñtu soxna si fi nekk. soxna si nga xam ne lépp ay ngëneel la. nga xam ne lépp ay ngëneel la. nee loolu kenn du ko ci loolu kenn du ko ci jiitu moom soxna Marème Faye Sall. soxna Marème Faye Sall wax na ne. soxna Marème ne. mi ngi feddali kóllëreem. mi ngi feddali kóllëreem. cofeelam. cofeelam. ci mboolem njabootu Maulana Cheikh Ahmadou Bamba yëpp ci mboolem Maulana Cheikh Ahmadou Bamba yëpp. rawatina. rawatina. yow mii nga xam ne. yow mii nga xam ne. ci la ñu yónni tey. ci la ñu yónni tey. mi ngi feddali kóllëreem ak yow. ne mi ngi feddali kóllëreem ak yow. di rafetlu sa taxawaay. di rafetlu sa taxawaay. démb ak tey. démb ak tey. lépp loo xam ne. lépp loo loo xam ni. jàpp nga ne lu baax la. jàpp nga ne lu baax la. doxal nga ko ko doxal nga ko ko. lépp loo xam ne. lépp loo xam ni. jàpp nga ne lu rafet la. jàpp nga ne lu rafet la. wanal nga ko ko. wan nga ko. loolu nag. ne loolu nag. munul moom itam. moom mënut moom itam. fi ko yàlla teg tey. fi ko yàlla teg tey. lépp loo nekk. lépp loo nekk. mu ñëw ànd caag yow. mu ñëw ànd caag yow. ba nga am ko na nga ko bëggee. ba nga am ko ni nga ko bëggee. lam wax bari na. lam wax bari na. lam jëf bari na. lam jëf bari na. xam ne lott nañ ci nag. waaye nag. waaye nag. ñu ngi lay xamal daal soxna si si. ñoo ngi lay xamal soxna si. ni ki li ñu yebal fii. ni ki ñu yebal fii. façon bi mu ñuy waxee. façon bi muy ñuy ak façon bi muy ñuy joxee. ak façon bi muy joxee. te ñun ñoo nekk ay doxkat. te ñun ñoo nekk ay doxkat. nekk ay giskat. nekk ay giskat. xam nañ ne am na fu mu la teg. xam nañ ni am na fu mu la teg. xam nañ itam ne bis bi bis bu rëy la ci moom. xam nañ ni bis bii bis bu rëy la ci moom. maa ngi lay ñaan. maa ngi lay ñaan. nga ñaanal ko yàlla. nga ñaanal ko yàlla. li mu liggéey ci réew mi. li mu liggéey ci réew mi. li mu liggéey ci keppaaru président Macky Sall. li mu liggéey ci keppaaru président Macky Sall. li mu liggéey ci askan wi. li mu liggéey ci askan wi. luñ mën a wax. luñ mën a wax. ak luñ mënta wax. ak luñ mënta wax. tey jëf-jëf yu baax. tey jëf-jëf yu baax. yàlla fay ko ko. yàlla fay ko ko. ci ak njabootam. ci ak njabootam.

moom soxna Bali ak ay mbokkam moom de sant na bu baax Marème fay Sall gërëm na ko bu baax di ko ñaanal yàlla ci barke bis bii muy bés bis soxna maam jaariyatullahi Mariama Bousso saa borom defal ko barke saa borom defal ko jàmm saa borom dolli ci moom sutura ak wér ak gudd fan ndax moom de xam na ne lumu ne lu ne bu gëstoo gis na ci wetam première dame Marème fay Sall kon nee na moom dana ànd moom dana ko jàpp dana ko fonkaat waaye dana xam ne moom moom ilaa yow mi diin ndax xam na ne Marème xaritama waaye rakkama te nee na bu jógee ci première dame day ñëw ci yow mi nga xam ne yaay loxoom te yow yàqaloo ko dara soxna Bali nee na président Mon Ndiaye moo ngi lay sant nee na yow jàpp nga ko yëg nga ko fonk nga ko te lu bare looy dugg di nga ci waxtaan ak moom lu bari looy def di nga ci waxtaan ak moom su la defal nga def su la nee bàyyil nga bàyyi te loola nag yëg la ak jàpp ngir xam ne sëriñ bi rek ngay xool ci moom nga def ko muy sa lépp moom nee na loolu yëg na ko te lu rëy la ci moom nee na moo koy séeréel ñi nga àndal président Rahma nee na moo ngi lay sant yowit sa cantuk bopp moo ngi lay gërëm sa gërëm bopp waaye yooyu moo ngi lay ñaanal sa ñaanal bopp ndax lan. te kii ko premier daal yónni mi soxna Bali Mbacke moom Cheikh Modou Mountakha soxna Bali Choyou euh, moo defar suñu diggante ñun ñaar. waaw euh, moo ñu boole moo ñu recommandé suñu collègue maag moom da nga fii la jógee ci kii sonsé waaw euh, sonsé dénk ma ko da nga mu nekk lu yàgg lu rafet. lii nag duñ na guleet duñ na gu duñ na guleet ci lu baax duñ na guleet ci lislaam duñ na guleet da nga ci rawatina yoonu murit kon dafa mel ñew na kërëm ñaar yoon ngir kër gam bokk di kër Mohamed Malik waya kër gi mu ñew di kër Cheikhul Khadim rawati na saxna Laahi la waaw di diko ñaan di ñaan premier dame eh, yalla genn bi rafet eh, kii ki kii comme dara wuti it da nga yalla ki nga xamanteni mom lañu joxe ñun ñepp dégg nga di président Amadou Ba ndax tay de nga eh, ak bëggam de nga defam lu baax de nga jiitu ak bëggam li wa kon nak lu baax loolu ko tax di jog lu baax loolu tax muy def da nga yàlla ko yàlla fay barke alxuraan waaw bañ ne ko toujours ma koy wax ne ko bi da ko wuyu muy euh, rahma ji waaw da ko wuyu